donc là ñu ngi xool troisième moyen bi ngeen mën a am pour installer Ubuntu si seen machine Windows c'est mu nekk benn machine virtuelle tout simplement boo xam ni da ngeen dem récupérer benn fichier ISO ngeen dugal ko fii nii VirtualBox alors lii nag on va solution bu intéressante la en sachant que ak VirtualBox mun ngay installer ay machine virtuelle yu bëri ci PC Ubuntu wala yeneen ak yeneen donc li ñuy njëkk a def mooy dem dem installer en fait download installer lancer VirtualBox donc nee ni dem si site virtualbox.org après ngeen dem si partie download bi soo leen ko defee di ngeen gis package yi am yo pour différentes plateformes yi donc ñun Windows moo ñu intéressé dem. donc instant bi nii am nañ fichier mooy exe bi exécutable bi donc là du ma ko enregistrer du ma ko kii defoon nañ ko ba pare mais je vous laisse yéen ngeen poursuivre étape bi comme ça ngeen installer ko avec seeni propres paramètres de config à partir de là donc soo lancé VirtualBox ba pare li ngay am mooy lii mun ñëw Après, tu peux créer tes machines virtuelles une par une, accumuler autant que tu veux. léegi li ñuy def mooy dem télécharger benn fichier ISO en sachant que avant loolu damay ni rappeler que VirtualBox am na benn version open source donc édition open source bu fekkee yéen un peu plus poussé techniquement mën ngeen dem ngeen build directement ci source donc là ñuy dem Ubuntu normalement fii la ñuy am Ubuntu justement <laughs> mais li ñu soxla mooy fichier ISO bi mu ñuy def mooy dañuy dem si beneen lien bi donc release point ubuntu point com après comme ni ngeen gisee lii de sélectionner benn image ñun bii moo ñu intéressé donc 64 bit bi après comme ni ngeen ko gisee bii nii il précise que Ubuntu douze cent G sa machine loolu en fait su fekkee utiliser woo benn VM la boon ko def directement sa OS Windows quoi ñun lii tamit defoon nañ ko mais instant dañ leen di wan ñu commencé woon enregistré ko duñ dem jusqu'au bout mais dañ leen di wan rek euh, soo leen téléchargé affaire bi kon ñu ñu annulé ko soo leen ko téléchargé ba pare mu ngeen dem après ngeen créer benn machine virtuelle bu bees donc on va cliquer sur nouvelle bii machine bi lañ koy jox tur bii nañ ko tuddee ubuntu 2 ensuite ñi dem tànn fan la ñuy waa di garder fichier yi ñu koy tuddee après gis ngeen ko def ni woon type yi ak version yi comme ni ko gisee y a plusieurs versions de Linux am ngeen ay Debian Ra yeneen on a Red aussi nga xam ne moom la version la version bi gars yi di utiliser di gën a bëri si biir entreprise yi léegi su am yeneen version comme CentOS boobu da ngeen di tànn OSO Linux mais là Ubuntu moo ñu la on va choisir mémoire bi taille mémoire bi on parle de bitcoin je vous conseille su fekkee da ngeen am benn machine de huit giga ngeen tànn environ entre deux virgule cinq et on va quatre giga de RAM parce que lépp lu jëm si download bloc yi def transaction yi initial blockchain download bi consommer beaucoup de RAM et quand il s'agit d'espace on a indi seen benn euh, disque dur virtuel après mën ngeen on va dire, je vais vous dire 500 gigas entre et 600 parce que su fekkee da ngeen bëgg am benn full node xam ngeen bëgg a télécharger blockchain bitcoin bi yëpp actuellement c'est environ 400 gigas en sachant que day yokk saa su ne donc je entre 500 soo leen xasee ba def lii nag machine bi créé wu na entre guillemets léegi il e ne reste plus qu'à configurer si configuration um boobu noonu. dañuy dem bon déjà dañuy décocher euh, disquette bi voilà on est dans après les autres informations sont ok affichage bi bon man jamais ma laal ko parce que ça va léegi fii la ñuy tànnee nag fichier ISO bi xam ne moom représenter disque dur bi euh, pardon moom mooy représenter CD bi comme su fekkoon da ngay dem dugal CD ba si sa PC quoi. donc moom la VirtualBox di jël pour mën a lancer wu pour mën a installer OS bi ci machine virtuelle bii nii ensuite mën nañ dem xool yeneen paramètres yi bon son du ko laal tamit lépp lu jëm si réseau yi du ma ko laal parce que au final lii lépp on va soxla def donc su ma xoolee lii lépp damay dem glisser déposer bi c'est pour soo bëggee copier coller de sa machine vers virtuelle vers machine virtuelle bi de machine virtuelle bi vers sa machine physique donc suñu xasee ba pare lii rek c'est bon comme ni ngeen ko gisee il m'est inaccessible parce que fichier bi téléchargé woo ma ko jusqu'au bout mais yéen soo leen toppee jusqu'au bu ngeen am affaire bi ngeen lancer donc bouton démarrer à partir de là ngeen def installation classique en sachant que ak méthode bii nii interface graphique bi ngeen yor ko léegi nag gis nañ ñetti méthode yu ñu am pour mën a u buntu suñu machine Windows à partir de la mën nañ dem xool na la ñuy installer builder paramétrer Bitcoin Core pour mën a am benn Bitcoin.